ayca jërë ngeen jëf suñu mbokk internet Dakar People ñu ngi leen nuyu baax baax leen ziar tey nag ñu ngi fi yëmbal seet si koo xamante ne kenn dootu présenté muy kan muy euh, maman Selbé maman Selbé nag yëngu ci wàllum seet euh, di naanaan bu mag a mag maman ñu leen nuyu la bàyyi nga nuyoo mbokk internet waaw di sant yàlla bu baax julli Seydina Mohamed di sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di ziar sëñ Muntaxa Mbàkke di ziar Serigne Moustapha si borom gàmm gu neex a ngi borom yaa rasulallah ah man Selbé Ndom maa ngi lay ziar di gën a feddali kóllëre sama diggante ak yow nuyu sama benn frère boo xam ne ba may dëkk seen kër fekk leen en 2001 booba mett na ci man te du ma am lu ma lekk dama gore bay bëgg a dee tëdd sama néeg benn repas lay am waaye moom moo wax si yaayam ne na ñuy génne nañ may woo ndax moom gis na ne maa ngi tëdd sama néeg gisul ma lekk gisul ma dem jëndi xam na ne yoruma ñu woo ma ma di fa lekkee muy doon Paul Gomis ah rakam bu góor John Gomis moo mu tuddee doom am naa ñaari turandoo njaago di ko ziar bu waax fu mu mënta nekk ci àddina bi rek maa ngi koy ziar di ko ñaanal réussite totale daraja Seydina Mohamed kóllëre man gor laa lu ma waaye defal damay reconnaître ni li defal na ma nangam di la ziar di ziar sama xarit bi nga xam ne maa ko bëggal sama bopp ndax yarom sa rakk ji ah di leen bu baax a baax. Mhm. baaba maman Selbé mais ñu gis ne maman Selbé temps yi da nga téye bi macha allah téye nga set bi itam. Ah, waaw waa xam nga rek taalibe Serigne Touba laa te li may def yàlla def na mën naa ko ndax fii ab seetkat. taalibe Cheikh naa Cheikh Sadio bi confirmé na ne fii bi mu mettee man dong maa fu njëkk a ubbi bunt yi maa fa njëkk a dëggal sama bopp taxaw ne làmb ji kii nii lay daane président bi nekk ci biir pale bi day génn muy Ablaye Wade Macky sàll mooy ñëw dugg si ci biir ndax Ablaye Wade wane ne ginnaaw day dem lépp man maa ko fi wax wax dëgg yàlla kon su ma dundee ba am samay naataangoo seetkat dama leen di ziara rek di leen ñaanal rek comme ni ma ko ñaanale sama bopp dem ba réussir ci ñoom aussi suñu borom def ñu réussir ci comme ni ma ci réussir ba jënd ci kër dem ci màkka ñoom ñëpp ñu gis ci seen bopp waaw man noonu la rek waaye sant yàlla rek daal lii yàllaa ko dogal ndax euh, saa yu ñëwee selbe xewi na rek selbe yàlla gën koo yëkkati ci kaw ah sant yàlla loolu sant yàlla duma ko damoo nag dañ koy sant yàlla mi nga xam ne moo may xam ma mën a gis jigéenu biir mu ëmb ma ne leen kii nangam lay jur te nee naa leen Selbé mi ngi ñëw defaguma dara. wallahi wallahi wallahi depuis quinze ans ba tey yaa ngi ci dara ñaaw macha allah nga ñëw si làmb ji la même mu neex bay bëgg a dee loo wax day am ñëw tamit ci si ci football bi tamit la même chose loo wax tamit day am. coupe d'Afrique bi bëgg dee mondial li fi amoon da nga ne woon Sénégal dajee coupe bi te mi noonu am na ñu waxaat tamit ci coupe du monde bi incha allah ñu waxtaan ci waaw waaw xam nga euh, lu ma yàlla won la ma gis Sénégal di jubilé 2019 bi sama jinnee bu góor bi moo ma yàqaloon 2019 bi bi mu bi final bi passé rek damaa xuloog moom xuloo bu metti ba mu ne naa ko baal moo tax euh, mu may ma coupe ndax maanaam sama diggante moom jeex na. jeex na ndax man jinne ju ma yàqal wallahi soxlawuma ko billahi wallahi watallahi sama diggante moom jeex na ñibbi na fa mu demoon fa mu fa mu jóge woon nee na naa ko baal kon kooko xam nga bàyyi na ma ndax daf ma yàqal damaa amoon yaakaar ba ne damay am coupe ñëw tegal ma saaku këriñ ne ma doo gañe billahi wallahi watallahi daraje Seydina Muhammad ma daa di mer lool nag tëju ci bunt bi ci dëju ci néeg bi di saaga ba xale yi dañoo ci defen dama nekk kenn ci la ma ne naa ko baal après moom mu dem ci laa wax Matar Ba ne ko dangay am coupe ndox damaa dégg Sénégal yuuxoo waawoo ma ne damay am coupe foofu laa ko teg damay am coupe nekk nag la ma dencoon yëpp ma def ko ca ba yàlla def ma am coupe di wax àdduna bi ne coupe du monde bi guy la maa ngi tàllal loxo képp koo xam ne yàlla wërsëgale na dara man naa am samay sarax rek wallahi watallaahi darajey seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam barkeb cheikh bamba xaadimu rasul barke maam limaamul mahdi barke cheikh ahmada tijaani wallahi alazim su amee lu may sarax damay am coupe coupe du monde laa wax parce man sama réew rek a ma ñor Aïcha Dakar people laa ko waxee de billaahi wallahi watallahi su ma amee ñu ma jox samay sarax ci kàttanu yàlla damay am coupe du monde ndax man lu développé sama réew rek man moo ma amal njëriñ ndax awma fenn fu dul Sénégal musumaa dem France musumaa dem Amérique musumaa dem Italie musumaa génn bañ ñu waxee tournée internationale billaahi wallahi watallahi dama leen ne daw ma avion bu ma njëkk a dugg moo dem ziar gi Seydina Mouhamed sinon daw ma fenn musumaa dem ambassade ñaan fa dara pour tukki musuma dem benn ambassade taxaw ne damaa bëgg a tukki lijjantiwuma ko sax fi ne sama passeport ba sax périmé na te yàlla xam na ne dewuma sax pour renouveler passeport parce que yàlla def na amaguma fenn soxla ci benn réew lépp lu ma am sama réew mii moom ma ko gënal waaw kon maa ngi tàllal loxo ministre bu bees bi mu dimbale ma rek ndax doo ko falu ministre am ko bi neex na di tàllal loxo monsieur le président de la république maanaam bu mu wax ne nañ dem yegg fii nañu bàyyi rek ñu dem ne ci coupe bi indi ko ndax Sénégal mérité na coupe du monde te kon day gën a neex ndegam coupe d'Afrique bi moo neex assurément coupe du monde bi. léegi yow sax si itam ñaat si ñaat daal la war. déedéet ñun mënuñoo xam nu muy toll ndax match bu ne équipe boo daje bu ne ak saraxam xam nga final bi maa ngi defoon mbaxalu yàpp ne ça là je vais te battre qui je et quoi je capable. billaahi wallaahi watallaahi su ma amee ku ma dimbali dinaa am coupe di monde. koo joxe. waaw ñu teel maa jox nga xam ne lu ma am rek daal di génne te duma dem ci kenn di wax ba sama xol di tàng ndax bëgguma sama xol tàng ci coupe du monde bi pour may laaj dara aw ko ma mer ndax 2002 loolu moo ñu teree am coupe. waroon nañu am coupe depuis 2002 faaro xar yu ñu lakk moom laa waroon am aw ko daal daal wax dañ dañ ñuy gagné seetaan ma match bi te dañoo dañoo gagné kon maanaam ñu bàyyi ma xel te xam ne man sama réew rek a ma ñor loolu bu ñu ko defee jàppale nañ président moom fu yàlla teg moom mi nga xam ne yàlla def na ayam moo tombé mu am coupe d'Afrique ayam gii laa bëgg mu amaat coupe du monde si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour suñu réew suqali ko rek ndax lim fi liggéey amul président bu liggéey am nañ star xalaatuñu woon train train ba ba ma ci duggee na mu fiixee Aïcha yee train ba neex na lool ay waay Macky Sall yàgg fi lool waaye ci ànd ak wér dëgg la dëgg la ñu gis ni itam dafa am yenn maa yoo xamante ñoom di kontu équipe bi pour bañ pour bañ a gañe itam parce que deux mille parce que gis nañ tamit coupe d'Afrique dafa am ñoo xamante ne ñoom dañoo wax ni senegal jël coupe bi. ñooñu ñooñu mënuñu dara ñooñu mënuñu dara xam nga man basé wu ma ci ñooñu ñooñ samay doom lañu ak samay rakk man du ma basé seen wax xam nga man lan lay basé ci li yàlla woon Selbé yàlla la àndal ma ànduma kenn ku dul yàlla. li tax ma gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ne leen gëmuñu yàlla man ñooñu doom leen di contre man yàlla laa gëm ndax yàlla moo may won li war a ñëw ma taxaw won ma sarax bi may def moo won def def lii ne leen équipe bi saa yu ma nee félicitation rek Sénégal àdduna bi xam leen nag équipe bi day gagné léegi boobu laa félicitation je félicite les lions je vous félicite fu ngeen déggee ma wax ko rek match boobu ci kàttanu yàlla ñun dañuy am ndam parce que mënoo doon sénégalais ba pare indiane sa équipe pour bëgg ñu jox la ay millions pour lan président Macky Sall bu jox kenn ay millions ku mën na ñaan te yàlla rek tax yaa ngi dégg def ay ñaanam def jël ay kurusam ñaan suñu yàlla may ñu mais comme ñu jox ko bu jox kenn xaalis. ndax yàlla mooy joxe bu yàlla nee dañu am coupe dinañ am coupe bu yàlla nee duñu am coupe duñu am coupe man ñooñu gëmuma leen ñi ma gëm mooy ñu bëgg seen réew ñi nga xam ne bëggal nañ seen réew jàmm bëgg nañ développement man ne bu ma sañoon Sénégal gi yëpp dina am ay tali tubaarikàlla xale yu góor yi dinañ liggéey chômage dootu am bu liggéey amee agression dootu amati xale yu jigéen duñ def leneen loo xam ne neexul yàlla maanaam bu ma maanaam li tax ma naan dama bëgg doon présidente de la république du Sénégal wallahi al azim bëgg naa Macky Sall saxal loolu utal créer ay emploi xale yi di liggéey dootu amati toog bu ci naan caayin ndax boo xëyee fii bu subaa nga bu su ngoonee nga gont fee wala nga guddee wàcc dootala la toogandoo bay naan ataaya loolu dafay am jigéen ñi ñu liggéey àll baa ngi nii billaahi wallahi watalaahi Chine ni ñu amee seen développement wallahi Sénégal mën na am loolu développement ñun am nañu géej am nañu ay àll yu ñu war a mën a bàyyi àll yii yi fi nekk hectares yi nga xam ne kenn defu ca dara la moo tax mënuñu def ay usine mais ñun mën nañu yore suñu bopp man gëm naa ne Sénégal billahi mën naa raw Chine ndax ñun sénégalais yi ak sénégalais yi am nañu xel ay xale yu jigéen dañu jóge fi dugg États-Unis du létt la moo tax ñu ko duñu ko def fii ah crochet bébé man mii su ma la crochet yére bébé da nga naan c'est pas man mii rek su la tiimalee létt la da nga naan da naan déedéet su ma tiimalee tegal la greffage da nga naan da naan déedéet ñun am nañu xel na pré na président Macky Sall déglu lii may wax développement mën naa am Sénégal man Selbé Ndom maa ko wax bu ñu xool ci beneen réew wala ñuy xaar beneen réew fi mu ne cinq litres diwlin junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk. ci loo xam ne 4000 la doon jar kenn xalaatatul lekk coof kilo 8000 yaboy léegi chinois yi dañ leen koy jaay amatuñu yaboy waaye ñun fu ñu jëm ñuy xalaat naan Ukraine ñun luy suñu yoon ci Ukraine ah ak fan. Russie lan mooy suñu yoon ci Russie ñun laa ilaha illallah lañu lañu xam fi mu ne nii ku yeboo wax laa ilaha illallah sinon. tu verras les conséquences. waa sëñ bi waa sëñ yi. yàlla ay yenn saa yi nag ma sàcc tuuti yenn saa yi ma sàcc wax lu lu lu jub nag damay seetaan gars yi nag. jànguma français. alquran laa jàng arab mais yenn saa yi ma cabaxal ndax damay xool gars yi ni ñuy làkkee français daf may neex. Euh, ñu waxtaan itam ci euh, euh, macha allah yàgg na nag 2013 di combat Modou Lo Eumeu waxoon nga fi nag maa waxoon nga ma seen. waaw xam nga damay wone xam nga suñu waxee dafa am ko ne woon moo dëpp combat bi ma xamal ko ne ba tey day fen te day fen te day fen day kàcc man lii laa waxoon laa tribune waxoon naa leen damaa waxoon tamit ay dara ne leen damaa wax ne Modou Lo dina daan Eumeu seen article baa ngi nii léegi nag coach Eumeu Sène moo jógoon xam naa daa dem liggéey ma bul sama bopp ba ma dox bay dem ci armeelu Tuubaa ya fa ñu denc sama papa ma naan leen euh, euh, euh, fii lañ may suul bu ma dee fii lañ may suul sama wetu papa yorul ëpp 7 millions sama sama sama ci sama kër gi di ci paas as mi ma doon yóbbu mi ngi nii chauffeur baa ngi noonu moo ma doon yóbbu su ma demee ci armée di rek laaj jub lii laa njëkk a wax mën ngaa wax date bi ñëpp gis ko man samay article dama ko denc article yaa ngi fii pour nit ñi xam ne man dëgg laa waxoon. wallahi dëgg laa waxoon barki seydinaa Mohamed maanaam lu ma yàlla may la don la bu ma sunu borom may don la bu ma sunu borom may li may def dama ko mën ndax man ma seet yàlla moo ma ko jox may tuddi di gis loo xam ne ñëw ku ne gis ne Jibril alayhi salaam Jibril le 28 septembre 89 le 28 dafa nekk alxames le 29 nekk ajjuma di nga am doom. le 28 septembre la jóge ci asamaan te ànd ak beneen malaax ñoo ne ma Selbé di nga am doom billaahi wallaahi watallaahi ku koy weddi xool leen jeudi la tombé le 29 nekk ajjuma ajuma biñ jullee timis ba pare laa dem ma am sama doom ki ne Cheikh Ahmada Tijani góor gu rafet googu ñëw na seet si ma def cortège moo tax ma ne Serigne Moustapha si mooy Cheikh Ahmada Tijani ndax cortège bi ma gis Cheikh Ahmed Tijani def ñëw seet si ma sama loxo bii Cheikh Ahmed nuyu na Cheikh Ahmed Tijani Cheikh Ahmed Tijani billahi wallahi wa tallaahi nañ ma indil kaamil billahi wallahi wa tallaahi nuyu na ma sama loxo bii wallahi alazim ay militaire la am tapis rouge bu sëñ Moustapha Sy di def ñi nekk gauche ñi nekk droite bàyyi tapis rouge bi Cheikh Ahmed Tijani wallahi loolu la am ñëw jox ma loxo hélicoptère la am billahi wallahi wa tallahi maam Baye Niass radiyallahu anhu nga xam ne fu Seydina Mohamed jaar maam Baye Niass day topp ci tànki Seydina Mohamed loolu rek mooy liggéeyam jox na ma loxo billahi wallahi wa tallahi Cheikh Omar Fouti borom bant bi kooku xel kom la ma fekk boobu maa sey sëy bu métti ñoo jox ma loxo may gis ay wàll yu bëri kon maanaam su ma leen nee gis naa nangam gis naa nangam. loolu moom la yàlla dogal ci man awma benn caaxaan waaw awma sax temps bi bàyyi làmb ji léegi non dara dara dara dara làmb ji làmb ji xam nga man euh, benn seetkat ci àdduna bi waxuma Sénégal àdduna bi man dong maa fi taxaw ne ñaari mbër yi di bari diw ak diw te dëkkuma ca kenn man dong maay taxaw ne leen mbër mii dina daane nii diw dëpp combat du dëgg amul won na leen preuve bi dëpp combat amul mi ngi nii article 2013 laa téye ba léegi maanaam dëpp combat amut du dëgg yàlla moo ma may xam-xam mu set xam-xam du ci grand mbubu du ci juróom-ñaari grand mbubu bu leen trompé xam-xam du ci musóor gu rëy déedéet xam-xam ci deret lay nekk sunu borom moo la koy mooñaale nga judduwaale ko sam papa am na fukki doom ak ñeent ñi nga xam ne ñoo ma mag man ba ma juddoo dafa ne bëggatul beneen doom doom bu am may na ko man benn man dong la yar ci biir kër gi te la mu doon wax ci man bi mu gaañoo ba ma commencé wax la nit ñi xam ne kii lii moo tax góor gi Cheikh bëggoon Selbé sama mag bi gaañu euh, trois jours avant gàmmu gi nee na ma te rek di xamuñu woon ne paa bi lii moo tax mu bëgg la quoi la ndekki lii moo tax paa bëgg la sunu fierté nga kooku loolu wax yal na ko yàlla xare àjjana ñoo bokku ndey ak baay kon maanaam làmb moom euh, dama dem ba coow li bëri ba samay doom di ci gis seen bopp ñi may woo di saaga samay doom yi mer te nit ki ngay am benn wàll say doom am benn wàll say mbokk am benn wàll am na ñoo xam ne maanaam tey jii suñ ma buñ ma gisee euh, ba ñëw su ma waxee ñu amati jàmm maanaam ñooñu aussi dañ leen di sóoraale mais du kenn ma ne bul ci làmb ba ma tiit ca la nga wax du kenn ma tere làmb du damaa ragal nit koo xam ne mi ngi jël tànkam teg ko ci suuf ci suuf si di ki dox comme ni ma ciy jógee nii ku tax ma bàyyi làmb léegi de tax maa neex ma bàyyi lamb su ma neexoon balaa làmb booy ñang ak ak Balla Gaye ma woor ñaani fan jéggalu yàlla du ma génn ki sama néeg bii xanaa waxtu dog ñundil ma ko yoraat sama kaamil di jàng yoraat sama uh, kurus di wird jéggulu yàlla subhaanahu wa taala dina ma mayaat dinaa ne kii ak kii lamb ji nii lay demee dama koy décortiquer benn benn yàlla moom moo may loolu voilà. bu la kenn woowoon entre euh, Balla Gaye 2 ak euh, Boy ñaari mbër yi ñëw ku ci ñëw mën naa la jàppale mhm. ku ci ñëw woo ma déplacé ñëw ba ci man ma xoolal la waxal la sarax loolu moom du ci dara loolu moom waatu ma ne duma ko def waaw ñaari mbër yi ku ci ñëw soo ma bu fekkee ne dañ lay daan nga la wax ne ne diw da lay daan mënuma koo dippar ci nay leer mhm. ku wax ne mën naa dëpp làmb waxul dëgg war naa leen archive bi 2013 laa wax tribune la tribune mi ngi nii woon nañ leen ko kon xam nga leer na ah mën nañoo nag booba dañ maa sot te man ba tey sax man du may dem ci ay sëriñ di sangatu ñoo yàlla daf ma doy sëkk ñooñu ñoo ngi defoon loola tey jii kenn déggatu leen waaw taalibe sëriñ Tuubaa nag bu wóor bu leer nekkul kenn maanaam moo tax ma ne du ma wax làmb de déedéet daf maa neex ma ne su ma neexoon dinaa woote conférence de presse ne maa waxoon ne waxatuma làmb maa ngi jéggalu yàlla jéggalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di di leen ne dinaa waxaat làmb dinaa woor alxemes dinaa woor ajjuma wala dinaa woor altine ak talaata àllarba alxemes ba ajjuma ba samedi may naan ndox yàlla dina ma jéggal yaa ngi dégg ndax defuma fi dara su ma neexoon damay waxaat làmb suba suba suba mais jëlaguma décision dama jël décision ne damay noppalu ndax samay doom kenn ku ci nekk say doom da nga am ci ñoom wàll samay doom nee nañu yaay bay làmb jarul lii da soo waxee làmb sama benn doom mi ngi Casamance danaam yaay boo waxee làmb du ma am du ma am du ma am jàmm du ma am jàmm yaay damay bëgg a dee tànk làmb ji bëriwuñ ba pare te loolu dafa metti te man samay doom ay doom yu bon lañu bëgguma sama doom dee ndax làmb moo tax ma ne dama damay bay làmb mais du damaa ragal kenn de bul wax sama làmb loolu existé wul de. loolu ndax làmb ji ku togg làmb yaa woote. borom sabare dinañ ñëw cóol ma dana ñëw mbëng mbëng ma dina ñëw leneen ak leneen jaaykatu caax bi dina ñëw jaaykatu ndox ma dana ñëw yalwaankat ba dana ñëw ci ñun ñëpp dañoo bokk ci làmb kenn terew ma làmb Aziz Ndiaye bu tëggee làmb c'est mon frère c'est mon propre frère Gaston Mbengue bu dee bu dee làmb rek loo waxee dëgg sa diggante yàlla rek Gaston moo tax nit ñi di di làmb Gaston mooy làmb lu mu am def na ko ci làmb làmb rek moo ko neex yàlla ko xiir ci làmb kon maanaam ñoom ñoom terewuñ ma làmb di dëgg kenn te kenn mënu maa teree làmb man maa ne xaaral ma stand by bàyyi làmb parce que xool ba xam waaw julli ko euh, jox seetkat yi rek sama rakk yi nga xam ne ñooy nouvelle génération na ñëw xam nga yëngal dëkk bi nañu gaaw jóg waay soxna Ayda génnal ak ñeneen ak ñeneen ah, ak euh, taalibi Cheikh naa Cheikh Saad bi ma seede daan ne kull fi ñeme seet tey nañ ko sant selbe ndax selbe mooy sama idol di ko gërëm ci loolu di ko sant maanaam ñoom ñëpp nañu jóg ci làmb ji jigéen ñi daal laa bëgg ñu dóor góor ñi moom jigéen ñi laa bëgg ñu gañe waaw parce que man jigéen ñi laa faral jigéen faraluma benn sëriñ man jigéen ji laa faral ci gang boobu laa bokk waa ñu samay naat naataangooy ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. léegi delloo ziar daanaka waxtu bi léegi mu jeex mais dañuy waxtaan ci li fi xew temps yi passé muy kan muy Bambaly Seck ne dafa jur doom joo xamante ne nanguwu ko. waa réseaux sociaux yi kay bëri na euh, maanaam. Euh, way bambali amul problème mën ngaa def bambali sekk xam nga maanaam xam nga bambali sekk xam nga xale la ma wax fële duma ko wax fii bambali sekk day xale xale rek mooy def erreur ndax euh, doom ji fi nekk président ministre mën ngaa jur doom mu nekk président mu nekk ministre mu nekk kilifa bu mag ci réew bi maanaam xam naa njuumte la rek ci moom a xalaatul woon ne loolu dina am waaw la ma wax fee ak la may wax fi du benn juum na affaire bi yàgg na xëy na mu yaakaar ne du dëgg ba affaire bi ah, yaayu xale bi Tida dem na ba nga xam ne sës na yaayu Tida aussi dem na ba sës ndax dégg naa benn audio bu mu doon wax di ñaan yàlla kam doon waxal hmm? léegi ah, xam naa moo tax rek ñu dem génne xale bi ci ay site internet pour nit ñi xool mën a àtte pour mu leer te loolu aussi am nañ ci ndam ndax xale bi maanaam ku ko xool rek di nga xam ne deretu Bàmbaali la loolu moom daanaka loolu moo leen di arrangé ndax dañoo toog ba quatre ans ëmb bi rek juróom-ñeenti weer rek temps la wasin bi ñëw nga war a nàmpal sa doom at ak juróom-benn weer tamit beneen temps la encore hmm? kon ñoom buñ demee ba taxaw rek joxoñ baaraam rek xamal ne baaraam boobu ñu joxoñ maanaam dëgg la waaw loolu daal lool rek la waaw ginnaaw nag sunu borom def na papay Bambaali muy Ousmane Seck mi nga xam ne Seck yëpp xam naa moo ci gën a taxaw na dëggal na boppam nee na xale bi Faramareen la ku ci wax rek waxit la te xam naa ne ci Dakar people bi laa ci mujjee waxe affaire Bambali démb nag am na eh, ab sëriñ boo xam ne xam naa ne xamaguñ ko dafa bëgg bës lu woom ne ma mooy Bambali ma ne ko doo Bambali boobu maa ngi dem di jëndi nag waaw après ñu wàkkante mu wax ma ci loo xam ne xam naa ne eh, waroon na ko wax sama gàddu koor bi doon wax moom c'est que gis nañ selbe nii rek dañoo fene selbe kenn la selbe njëkk selbe yàlla la waaw waa daf ma ci wax lu ñaaw ndax euh, lam ma wax kam ma wax du dëgg loolu du dëgg ndax kooku du lu sama loxo yi gis ko ci sama jëmm ji ndax man du ma ragal su nekkoon lam ma wax dama ko defit dama naan ko maa tey maa ko def ndax euh, ànduma ak baayam defu ak ay wax ay waa moom xamuma ko démb mu daw res sama eh, kii sama gàddu koor woowaat ko mu daw res te dañ ko waroon eh, dañ ko laaj pour mu yónni ñu localisation ñu localiser ko ñu ñoo doon dem boobu dañ doon dem daral ni kon damay bàyyi nag bi ma doon jëndi damay dem fekk ko fu mu nekk su ma eggee dina xam ne lépp dëgg la man ñi jigéen rek dinaa ko affronter ba mu xam ne lépp dëgg la eh, man romb naa fuñ may fuñ may jéem a daggee li may def dama ko man am fit am xam-xam xam-xam du ci grand mbubb xam-xam du ci jaaro yooyu takk nii lam nii dara xam-xam day nekk sa deret man su ma doonee sama maam dama romb yàlla mi nga xam ne moom ma bind may ma xam-xam jël sama pooju càmmooy bi def ko def ci alquraanu karim su ma rombee yàlla yi nga sama yaay baayam kenn ku ne dégg na ma ñaaw ñépp xam nañ ko maanaam Serigne Touba mi dama cee am wàll kuy jébbul ci koo xam ne fekk woo génération mujj la ko nangul di wax nga dégg di ñëw ki sa kër nga xam ne am nga dara buñ ma gis ni nag ma simple nag ku ma sonku ne daanu nga billaahi ma duma xuppaate de nañu bàyyi li ñuy def ku ma bëgg a tëj kaso fa nga bëggoon tëj yàlla la fay dugal loolu yàlla def na ko ci man moo tax toujours wallahi saal bi sax du ma fi toog du may bëgg ko may tooñ te nag koo xam ne kenn xamu ko man seet naa ba am kër tubaari kàll mën ngaa dëkk ci suuf téeméeri at amoo yow problème ñetti kër laa yor benn bu ci nekk day tëj rien de sosé buntam mooy bunt principal bi première am nañ seen bunt am nañ seen waañ am nañ seen salle am nañ seen salle de bain deuxième la même chose kon man ñetti kër laa am du ma luwe koo fi gis keneen ku fi rax dama koo abal soxla ma luyaasum nit ndax dama dund luyaas loo xam ne xëy na ñii luye ñu bëri xëy na xamuñu ko nit dina yore ay doomam du am lu mu lekk weer wu dee ma ngay xalaat lim lay jox wallahi la ngay lekk jox na la ko waaye xolom seddu ca te man lu lewul soxlawuma ko moo tax du ma luye mën naa laa abal du ma leen fayal ndox du ma leen fayal courant ndax xaw ma yow sa poos bu mu toll la ma am dama koy bokk yow la laa ilaha illallah musuma luye te am naa fi neuf ans kon maanaam li may def dama koy teg ci yoon maanaam tooñ moo amul njëriñ ku bëgg nag debal ngay bind sa yëf nga sangu yaa xam wala bu guddee nga tàllal yàlla loxo ne dama bëgg a siiw ba yàlla di siiwal boobu xale bu ndaw laa sama yaay daf ma doon wax ne ma yow doo gudd fan fii laa la teg ma ne ko dinaa gudd fan boo yóbboo teg ma fii yoon góob ma ne dinga dund ba am doom ma ne ko may am doom ak jàmm sam papa su ma yónnee Jurbel ki sama bàjjan danaan Selbé dootuma la yónneeti salaamaaleykum papa ana rek laay dégg sama kii léegi sax damaa toog sama doom naa ma yaay ma wax toog naa ak sëñ Moustapha Sy wallahi mu a ma selbe doo bàyyi média ma ne ko si Malick média de su ma ko bàyyee du baax ndax ci laay liggéey mu ne ma ah, ah kon nag baax na hmm? kon maanaam ñiy wax nañ toog yàlla ma waxloo bis ma noppilee rek neppiloo rek di daan noppi li may def nag yàlla seede na ko ak yonent bi dama koo man du joxe samay numéro yéen yow ba yeneen numéro laa lay jox nañ ma woo ci 77 586 11 12 77 447 80 25 loolu samay numéro la ku ma ci woo boo nekkee Allemagne dinaa la seetal wax la ni nga ni nga toll ni nga mel wax la loo xam ne doo wax déedéet ndax li may def dama koo man du ma ne dama ko doon ci samay maam sama wàllu papa rek ay ceddo lañu ay buur lañu ceddo nga xam ne dala mën na laa wax deux mille euh, vingt trois lu ciy xew yàlla dafa may xam-xam moo tax duma ma tiitaru mukk ndax suuf si may teg sama tànk ndànk laa ko ciy joggee duma ma ca tëb duma ci def dara ndax bu ëllëgee suuf si daf may war waaye bu ma seetuloon ne ëllëg suuf si daf may war kon ma def yëfi ceddoo de kon ma def yëfi ceddoo de su ma defee yëfi ceddoo soxlaay gën a mën a wax ci laa mën a gis nag damay exiger. su boobaa yaram wi day tàng te damay exiger nañu bàyyi lañuy def te jaamu yàlla tey wax laa ilaha illallah mu nekk sama biir xol bi moo tax du ma mën a déborder du ma mën a def dara waaye su ma jëloon ceddo bi nañ xam ne lépp dëgg la. maman Sabi xam naa war naa ñëw tey sama taaw bu góor boobu ma yaasin may sa biige may sa biige maar. ajum naa da nga des doom jarga dem ba ca lambaay faramaareer ah mi ngi fi yàlla def na ñëw na ci jàmm ndax daa war tëgg yaakaar naa ne suba dama di mag nag waaye su ma nekkutoon mag maa nga fa muy tëggee. waaw mais. su ma ma dem. fa lay gën a neexee. su boobaa danaa ubbi armoire bi rek waddal benn rek daal di xam nga damaa mën a defar nag defar sama bopp maquillage bu discret bu rafet mhm. jël xef daal di teg rek ah daal dem taxawal ko nag mhm. waaye man dama di gor bëgguma dem ci buntu kenn di taxawaalu damay xaar ñu invité ma comme ni ma Seydi Mouhamed Moustapha Sy di invité jox ma invitation d'honneur mhm. bés moo waali invité ci kàttanu yàlla dinaa ko fekki danaa ko feccal ndax doom la ju ko jar ah di wax les détracteurs bu leen sonn saa ñu demee ba yàq rek sunu boroom day gën a jafal waalim jëm ci kaw newoon naa ko mu def standby standby bi moo nekk moo tax mu dem fële France nekk fa di nekk ci leneen def na standby ñëwaat na ñëwaat na. ban nit moo def xam nga dafa téye musique bi. am na sama vidéo ñu ma ko doon feccal naan leen Ibrahima moo téye affaire bi nii fecc naa ndax waali waaw euh, dafa téye affaire bi loolu rek moo tax ñu soxor fi mu nekkoon ci kaw tiwil bi comme euh, weñu baas nekk ca kaw ñi ko doon taxaw di xool am na ñu ma ci xàmmee su ma neexoon su ma regaluloon ñu yàlla ba ñu moon xamb seytaane billaahi wallahi watallahi dinaa wax ni diw moo doon jéem ak ñi mu àndal ñoo doon jéem pour faagaagal Wally sekk pour mu daanu far yàlla def ñu taxaw di ko xool moom mooy langaamitu ndànk di langaamitu ndànk ba wàcceel boppam wàcc bi mooy standby bi mu def nii kon nañu moytu yàlla sekk Seck ngi nii lu ngeen di def dama koy gis lu ngeen bëgg a def dama koy gis waaye yàlla def na waali sekk fenn rek lañ ko mën a jàppee duma ko wax ndax moom loolu la ci boppam loolu la loolu la saa yu ñu ko jéemalee rek sunu boroom da ci da ci wis galaas du ko mën a dara nit ki nag boo gëmee yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ne yow jullit nga Dakar people laa ko waxee de dangay ngay jéem a dem sa yoonu bopp jéem a réussir waaye naa faagaagal jiw te ba ndeyam di liggéey ba faatu ki jaaga li tax com sek nekk njoko njale jaaga allah barka jaaga indi mbaara jaaga ah merci beaucoup jaaga dafa am lu mu ko liggéeyal moo tax ba jaaga di liggéey boobu ñi koy yàqal ñi bëgg a yàqal waale wala ñu yàq waale seen ndey ma nga tëdd ca basang di nelaw wala ñu tëdd ca gannus ba di nelaw xam nga gannus gannus suuf saabul bu bëri loolu mooy gannus boobu ñoom ñu ngay ñu ngay nelaw kon nañ bàyyi waale bu yàggee nag dinaa wax tur nañ bàyyi jàmbur mënuñu koo fay te duñ ko fay ndax li muy def ci réew mi kenn mësa a gis fii woykat boo xam ne ñu ngi maye ay oto gis ñu woykat boo xam ne ñu ngi yóbbul ay nit ñi ceeb gis ñu woykat yoo xam ne ñu ngi faj ay malaat ñu ngi may ay ay handicapé ay affaire ba mën a jël ay beeke di bigal handicapé yi lem benn tànkam di fecc loolu kan moo ko mës a gis kon nañ ko ne jàkk rek te bañ koo piis ku ko piis sa bët sa mais am maasal bi daf mel da dagg sa rasta bi. dama waxoon waale bu ñibbisiwul dama koy dagg eh, dara dara dara mbay Mbaye euh, waali dañ ko namm du pour man mais xale yi sénégalais yëpp ko namm euh, sénégalais yee ko namm xale yi dañ ko namm xale yu jigéen ñi namm nañ dem ci waali bégal leen xam nga Wally dam mooy laqad jaakum li tax ma ne Wally yonent la bu yàlla yónni laqad jaakum rasul min anfusikum yàlla wàcc na yonent ci yéen maanaam pour mu bëggeel li bégal leen loolu la moo nekk mission bi ko yàlla jox Wally nekkul loo xam ne loolu la préféré natt bu ko yàlla teg la muy taxaw di bégal nit ñi di woy ay nit ñuy kontaan yaa ngi dégg loolu la loolu moo tax moo tax ma ne laqad jaakum léegi nag euh, Pawlish ne moom dafa bëgg mu ñëw ndox wéet nañu dugg foog ne leen damay pendre sama bopp ni ñi ree ba bëgg a dee léegi nag ma daa juy tegal ne ko xaa ma dagg sama rase yi nag soo bañee ma dagg sama rase yi nga ñëw te xam naa ne ñibbisi na du pour man ndax man dewuma baalu Waly Seck mais xale yi gëj nañoo dem Waly xale yu góor yi ñoom Pawlish gën nañoo défilé wu maanaam dañ koy namm sur chaîne maanaam loolu moo tax rek mais nekkul ne man damay dem soirée Waly man dewuma feccewuma maanaam fii ci biir kër gi laa koy jàpp rek taal télé ba di ko seetaan en direct di ko pàkkar ci rek ah di ko pàkkar direct tubaarikàlla ci sama biir néeg laay fecc dew ma ci mbedd bi di fecc loolu la rek. masal ba ñu lay bàyyi nga tàggatoo mu ko waa di jox dig daje rek ci Dakar People ci euh, euh, euh, coupe du monde bi incha allahu rabbi ah ñëpp nañ mànkoo laa ilaha illallah. kennal yàlla neexal yàlla ndax ñu may ñu kub ndax sunu ga sunu réew mi suqaliku ñun sunu wàll wéy nañu ndax am nañu lu ëpp cinquante ans nouvelle génération mën a am ay xéewal Sénégal suqaliku moo tax Selbé Ndom di sonn pour maanaam nouvelle génération sama sët yi war a ñëw sama doom yi war a am njaboot ñëpp samay doom lañ jigéen ñi maa leen jur góor ñi maa leen jur man sama doomi Sénégal amul kenn ku fi bon xale yi jigéen ñi baax nañu góor ñi baax nañu maanaam euh, dañ ne sabi yan sabi yoon walaw kaana nabi yan fowal donte kon da ngaa nekk xale man fonaa samay morom fonañu ñeneen fonañu maanaam ñun ñi mag daal nañu saxoo laa ilaha illallah jàngal xale yi laa ilaha illallah ñu màggal yàlla ñaan yàlla Sénégal jàmm nekk fi xéewal gi yokku ci daraje Seydina Muhammad ak barke wali yu baaxee di leen wax ne kii bi mi ngi ñëw euh, Selbé mi ngi ñëw ak euh, puissance sexuelle façon bu ne am naa ko am naa jinjeer bi dina am miel bi aussi xale jigéen ñi nga xam ne dañoo tuuti bëgg yaram aussi ruyu Selbé mi ngi ñëw maanaam bëgguma wax damay bañ ñu pirate ma am naa jom joo xam ne duma ma kenn toujours damay def sama yëfi bopp dinaa ko teg euh, table via kii Dakar People ñëpp gis ko incha allah incha allah